seen jigéen Sabally mu ngi nii yéen a ngi ko gis ñëpp a ngi ko wax commando commando bu dul jeex Momodou ngi nii xool leen paa yi ma ne ko xool leen paa ku nekk Sabally Sabally Sabally how is the love like? love and caring and embracing each other regardless of ethnic or regional boundaries. We are the Gambia, we are the people of the Gambia, we are Yellow Nation. sawal luma jaxal jaaxal bokk nga si exécutif UDP way magi ma ngi gis ni jog jóg di la nuyu ku nekk mu la nuy tay nga téye li nga xamne moy document ci roma ñep ci ko indi lan nga def UDP be awara lool ma dama ne UDP ñu baax lañ UDP lañ so UDP suñu amé soxla man duma dé cette responsibilité dama jog rek carré on that responsibility everything I do I do it for him for him for her for everybody because everybody cares about him. It's amazing national anthem. National anthem.